gi mbokk yi xarit yi li gën a fës ci bopp xibaar yi bokk na ci pencum ndaw réew ma di assemblée nationale tey ci gaaw bi ñu waroon fa amal ay waxtaan ngir soppi li nga xamante ni moom moo di budget 2024 waaye loolee nag euh, mel na ni dañ ko mujj annulé débat d'orientation budgétaire boobu mujj nañ ko annulé ci ñàkk déggoo ndax euh, majorité bi di waa Benno Bokk Yaakaar dañoo jàpp ni élimaanu jawri ni di Sonko la mu wax ci wàllum déclaration de politique générale loolee daal jàpp nañ ni dafa salfaañe yoon ba tax na du ñu may kenn ku bokk ci gouvernement bi ñuy ñëw ñu koy dalal ci assemblée nationale ba tax na daal kon yëf yaa ngoog tey la woon ca péncum ndaw réew ma euh, bu waa benn Bokk Yaakaar yëkkatee ay kàddu waa Yewwi Askan Wi rawatina Ayib Daffé moom jàpp nañ ni daal ce n'est qu'un coup d'épée dans maanaam li ñu def nii ñoom waa Benno Bokk Yaakaar daanaka du dara ci wàllum njàng meek njàngale mi fële ca Gorée euh, di maison d'éducation Mariama Ba na mu koy amalee at mu nekk sargal na jàngalekat ya gën a ràññeeku ca daara ja lu toll ak fukki ndaw di ay xale yu jigéen sargal nañ leen ci seen not yi ñu am atum ren ci teewaayu joorin bi ñu dénk wàllum njàng mi di Moustapha Mbaba Guirassi moom sax joxe na fa ay dige ni nguur gi dina gën a taxawu maison d'éducation Mariama Ba gën ko dooleel ponk bu mujj bi nag ñu war ko jagleel wàllum euh, fruit di meññeef fi rawatina lii di màdd di fruit exotique guddi bawoo ca diwaanu Casamance loolee nag Samba Dieng Sakho Samba Dieng Sakho di sunu ndaw dinañu ci ubbil ab euh, gëstu bu gën a leer ak ni nga xamante ni filière boobu noonu lañ ko fas yéene gën a dooleel ndax bu ñu naan euh, noix de cajou di xeexu xeetu derkase xooxu darkase boobu mel na ni matt it am na doole lool ci njënd ak njaay maanaam ci wàllum exportation te Casamance am na lu bëri lu mu ci jëlee mbokk yi xarit yi moo mel ni lii mooy li gën a fës ci bopp xibaar yi. mbokk yi dellu di leen gërëm di leen sant ci ni ngeen amee kóolute ci seen télévision 7TV pencum ndaw réew ma tey assemblée nationale mel na ni jotoon na xaw a xumb nag ndax lu ko waral moo di euh, waa Benno Bokk Yaakaar député yi Benno yi nee nañ du ñu dalal benn yoon jëwriñ bi nga xamante ni moom moo di euh, moom mi ñu dénk wàllum gafaka réew mi. Euh, di Cheikh Diba waroon fa teew nag ngir indi euh, lu ñuy wax euh, débat d'orientation budgétaire maanaam ay coppar ci ay coppite la ñu waroon indi ci budget bu 2024 loolee nag ñu ni ñoom duñ ko dalal lu ko waral moo di élimaanu jawriñ di Ousmane sunko dafa am daal kàddu yu mu yëkkati wax ko jëmale ko ci assemblée bii fi ne ak déclaration de politique générale bi ñu nga xamante ni ñoom ci lañ koy xaar ba tax na daal nee nañ du ñu mujj dalal képp ku bawoo ci gouvernement bu Ousmane Sonko jiite waaye waa yeewe askan wi ñoom ay dafe jàpp nañu daal jëf jëfin yooyu le maanaam du leen wàññi dara. lettre bii di Ousmane Sonko bind ngir tontu député bi di Guy Marius Sagna jëm ci wàllug déclaration politique générale am moo tax ñu annuler débat d'orientation budgétaire mi nga xam ne waroon nañu ko amal ci samedi bile. li nga xamante ne nii moo waral suspension bi mooy moom ci boppam démb déclaration boo xam ne amul benn worma bu mu jox assemblée nationale. ci biir lettre ba Ousmane Sonko dafa xam xamle ne fii lekk fukki fan ak juróom ci weer juillet gi ñuy waaj dugg bu fekkee ne soppiwuñu règlement intérieur bu assemblée nationale dina def déclaration politique générale am feneen fu dul assemblée nationale mu doon naka loo xam ne opposition ba daal na koy ñaawlu. maanaam day dem daal foo xam ne day woo sénégalais yi woo ay ñeneen ak ñeneen pour Sénégal république la Sénégal réew la boo xam ne dafa am ay droit règlement dafa am constitution. député Yewwi Askan Wi ñoom ñu jàpp ne li yëpp aljuma gii ci ngoon lañ ko orchestré gannaaw conférence de presse bu groupe parlementaire Benno Bokk Yaakaar doon amal ayib dafe ak ñoñam di joxoñ baaram tuuma njiitu ko assemblée nationale. ko convoqué sous la pression mais du yëfu loo xam ne moom moo ko def du sañ-sañu boppam si ay caaxaan nañuy doxee. si maatay nañuy doxee ci tappale nañuy doxee. bu ñu sukkandikoo nag ci ayib dafee débat d' orientation budgétaire mi nga xam ne dañ ko annulé du gàllankoor dara liggéeyu gouvernement bi. liggéeyu gouvernement bi day continuer du am dara lu muy lu am dara lu ñuy tere gouvernement bi daf député yi kay nañu tere wax. député yi nañu tere def seen liggéey. xëccoo mi nga xam ne nag am na diggante pouvoir exécutif ba ak pouvoir législatif bi ku moywul crise dina am diggante ñaari institution de la république yi jërëjëf Djibril Diallo ba tey ñu wax ci déclaration de politique générale boobule di ci ànd ak Ousmane Ba ci ay jàngat euh, ci nga ñi nga xamante ni nekkoon nañ fi ay ilimaanu jëwrin jotoon def seen déclaration de politique générale euh, ak li nga xamante ni waa Benno Bokk Yaakaar ñu ngi koy yëkkati mu di ay wàllum euh, motion de censure ngir daaneel nguur gi nga xamante ni Ousmane Sonko moom moo ko jiitee ñu delluwaat tuuti ci taarix ànd ak Ousmane Ba. ci juróom benn fukki at ci démocratie bu Sénégal bariwul ay motion de censure yuñ ci nemmeeku ñeel déclaration de politique générale tey ci am amuñu benn jeexital ay premier ministre ku ci mel ni Mamadou Lamine Loum Mama Dior Boy Abdoul mbay wala sax bi ci mujj muy amadu Ba ñoom ñëpp jotoon nañu dëkku ay motion de censure ba ñu demee ci assemblée nationale motion de censure yooyee nag yëpp la ñu dàq waaye nag nguur yooyee ñoom ñëpp dañu amoon majorité ci assemblée nationale bu am dayoo nag kaaraange googe nguurub Ousmane Sonko nag amu ko ba loolee waral kii di Ousmane Sonko di dem ci déclaration de politique général bi ak tey loole nag li ko gën a may muy article cinquante cinq bu charte nde yi réew mi bi nga xam ne mu ngi fësal ne premier ministre suñ ko tabbee dafa war a def déclaration général ca assemblée nationale waaye nag amul dele ci constitution bi te itam disposition yi nekk ci règlement intérieur bu assemblée nationale doon encadré DPG bi yépp la ñu abrogé ginnaaw bi nga xamee ne dañu sempi woon poste de premier ministre ci atum 2019 te delloo si waatu leen ba léegi loolee di wane ne kii di Ousmane Sonko fi mu taxaw dëgër na bu baax waaye nag du moom kese moo yéex ci wàll wi ndax kii di Abdoul mbay itam toog na lu toll ci juróom benni weer laata muy dem ca assemblée ginnaaw bañ ko tabbee ci atum 2012 waaye nag charte ndeyi réew mi dafa am beneen leeral bu mu indi ci déclaration de politique générale bi maanaam ne déclaration de politique générale boobee assemblée assemblée nationale rek lañ ko war a def moo ne day kii di Ousmane Sonko ci ab bataaxal bu mu doon tontu député bii di Guy Marius Sagna mu ngi xamle ne su assemblée nationale jëlul ay matuwaay fileeg le 15 juillet 2024 dina amal sama sama DPG waaye nag ci kanamu assemblée bi nga xam ne mooy askanu Sénégal ak ay partenaires u Sénégal ci kanamu jury bi nga xam ne ay boromi xam-xam ak ay acteurs yi nga xam ne yënguwuñ ci wàllum politique ñoo fay nekk ndax premier ministre dafa bëgg violer constitution di am su fekkee ne député yi nga xam ne askanu Sénégal moo leen fal duñ ko mën a critiquer wala ñu valider ko ndax ñu ngi jëm ci ay tension yu métti diggante législatif ak l'exécutif ak lu ci mënti am li leer ba leer mooy déclaration bile moom dafa mel ni da yokk ci xar mi karaw. jërëjëf Ousmane Ba ñu wax ci wàllum koom-koom ak euh, li nga xamante ni moom moo di euh, bor yi réewum Sénégal di abbi ci bitim réew. Euh, bu dee wàllum euh, rebond la ñu doon wax jamono yi ñu génn tegaat nañ ci wàllum emprunt obligataire yooyu yëpp nag nekk ay bor yi nga xamante ni dafay gën a dolleeku ci li nga xamante ni euh, nguur gu njëkk gi jotoon na ko ab mu doon it li nga xamante ni boroom xam-xam yi ci wàllum koom ñu ngi ci indi ay jàngat ñi jàpp ni jaaduwul ñeneen ñi gis ni lu mënta ñàkk la ci gouvernement bi ba tax dañ ciy ànd ak ki nga xamante ni moo di amaat Ndiaye xam-xamam màcc ci wàllum économie ñetti weer gannaaw bu ñu leen falee ci boppu réew mi nguur gu bees gi di wëyal di leb xaalis bi ci mujj toll ci ñaar téeméeri milliards ak juróom benn fukk ak juróom ci suñu xaalis. yoon lañu dox te buñ ko deful dëkk bi na taxaw te buñ ko deful dëkk na projet yi dina taxaw euh, lu bari dina taxaw donc dañ koy doxal rek donc lépp bi ñuy leb ni da nekk loo xam ni yoon la réew na loo xam ni ñun dañu bari soxla bëgg nañu faj faju bëgg nañu hôpital yi doyu bëgg nañu defar ay tali tali yi doyul bëgg nañu jàngal xale yi bariwul li bëgg nañu bëgg nañu alal ji bariwul ci réew mi réew mi ba du attanu ko bu ñu sukkandikoo ci professeur Amath Ndiaye lépp ngir fay suñuy bor lu xel mën a nangul lii problème mooy intérêt yi rek intérêt yi moom intérêt yi nag moom moo rek mu ngay fay te intérêt yi moo gën a tuuti li ngay remboursé intérêt yooyu budget bi fi ñu toll Sénégal bu muy commencé la bëri attan nañ ko attan nañ ko toll att attan nañ ko ak affaire pétrole bii di ñëw nag ak bi yàlla dina def ñu gën ko attan waaye lu ci am solo roy mooy bu ñu lebee rek dañ ko teg dugal fañ ko war dugal def ci li woon def liggéey ci li woon ci liggéey ndax réew mi jëm kanam. mu jàpp ni it ni Sénégal yeneen i réew dañuy faral di leb it ngir sukkandiku. boo xoolee dëkk muy wax États-Unis Amérique dañuy leb te ñooñu ñoo ñëpp bor dañuy leb ñooñu ëpp bor France dañuy leb te ñooñu ëpp bor te ko comme c'est que ñooñu am xa réew yi ñu naan développé nañ am nañu doole te ñooy leb astamaa ñun ñi amul doole donc fa mu leb leb bi mënul ñàkk bi nag c'est pour ay soxla te boo xoolee Sénégal sax seen budget bi li tax ñu leb surtout surtout pour investissement la parce que Sénégal budget bi amuñu amuñu problème pour fay salaire wala. ak nu limu xaalis bu ñuy leb mën a tollu professeur bii nga xam ne ni moom mooy jàngale ca FASEG jàpp ni lu gën a am solo moom mooy ñu xam nu ñuy lebee te bu ñu lebee ba noppi ñu xam a fi ñu koy dugal. ñu wax ci wàllum njàng mi maa ngi koy junj léegi ci boppu xibaar yi. lycée d'excellence Mariama Ba nekk fële ca diwaan bu gore ñu fay tàggat ay xale yu jigéen ren nag niñ koy faral di amale saa bu l'école di tëj sargal nañu xale ya ca gën a ràññeeku maanaam classe bu nekk daal ka fa ëppi not gën cee ràññeeku moom jox nañ ko ay prix euh, ñu def nag xew-xew bi ci euh, euh, ci thème bi may waaj a liir mu di les harmonies de la connaissance plaidoyer pour une éducation musicale intégrée et valorisée ci teewaayu jëwriñ bi ñu dénk njàng mi di Moustapha Mbab Guirassi moom sax xam ne na ni euh, lycée d'excellence Mariama Ba war nañ ko gën a dooleel. bés bu ñu màggal xarañteef bu lycée Mariama Ba doon li gën a fës tey nag ci gaawo mu doon ab cérémonie bu am solo lool. avec ay not yu baax duguleet ñu koy daal di gis fii ci lycée bi ñoom nag bégloo seeni waajur itam ki ñu tuddee école bi Mariama Ba. mbégte laa gën a yëg surtout te sama mag yi fi nekk ñoo nekk di ma won yoon bi. ñun lañ teg yaakaar bi ñu ñëw jigéen yi war a euh, gérer suñu réew euh, ëllëg kon loolu mën nañ ko def dañoo war a gëm suñu bopp. ay mensonges yuy tegaloo. rax ci dolli ñett ci ñoom ñu daal di leen jox ay billets ngir ñu daal di àggale seen njàng ca bitim réew ñëpp nag ñi ci jàpp bëgg lool ñu daal di porox ndoolu ci bés bi itam daal di jagleel ab bataaxal ki nga xamante ne moom mooy njiit bi ndaxte jàpp nañ ni lycée Mariama Ba bañ ko jëmmalee ci atum 1978 ba léegi am na lu bari lu mu manqué. je maa ngi profité si bésu tey bi daal di ñaan nguur gi ñu jox ñu statut bi ñuy xaar maanaam li lycée d'excellence loolu nag ñu war ko jaarale ci benn arrêté ministériel ñu koy xaar nag ma di ko ñaan jëwrin bi. ba ñu jógee ci loolu nag ñu daal di féexal seeni xol. jëwriñ gi gàlloo njàng beeg njàngale bi nag ba muy jël kàddu daal di ñëwaat ci thème bi nga xamante ne moom lañu tànn boole ci di xamle ni dinañ gën a taxawu bi le lycée d'excellence. vous êtes puissant. xam-xam ngaa ngi fi naam nag lépp moo ngi dépendre ci li ngeen di andi lu bees ngeen xam ni mën ngeen a def lépp. soxal nag statut lycée d'excellence bi ñi ko gàlloo jox naa leen ndigal ngir arrêté bi ñu daal di koy jëmmal. ñu nekk ay téeméer téeméer élèves ñoom ñi nga xamante ni nag ñoo ngi wane seen i xarañteef leneen lu nekk seen mission moo di topp ci tànku ki ñu tuddee bile lekkool ñeneen a ngi nii doon euh, màggal juróom fukki at gannaaw ba ñu sampee seen kuréel gi di AGS di association des juristes euh, sénégalaise di ay soxna ñoom it di xeex ak ak fu soxna yi loolee nag mu nekk li nga xamante ni euh, bés bi di màggal seen juróom fukki at ci terrain bi ba tax na def nañ ci lu ñu wax évaluation ci jaar-jaar yi ak li ñu jot a am ci xeex bi nga xamante ni boobee ba léegi ñu ngi koy xeex ngir àqu soxna yi waaye it àqu xale yu ndaw yi maanaam euh, les enfants et les 1974 jàpp 2024 association des juristes sénégalaises di màggal juróom fukki at yu mu yëngu ci wàllu xeex ak ak fu doomu aadama juróom-ñetti njiit ya mu jot a am liggéey ak lu toll ci 300 membres 1000 parajuristes lu toll ci 70 projets ñu daal di koy doxal si seen juróom-ñeenti bureau de droit yi nga xam ne ñu ngi ko samp ci lu toll si juróom-ñaari région jot nañu saytu lu ëpp 68000 dossiers tey jii nañu toll ci xayma mu mel ni ñoom juristes yi kontaan nañu bu baax a baax ci liggéey bi ñu def. ay documents yu bari yoo xam ne wax nañu bind nañu ko ci wolof ndax nit yi askan wi mën a xam seen ak seen yelleef jigéen ñi nga xam ne féete caada ga leen a féete gannaaw. dañ leen di seet di leen nemmi ku leen taxaw. liggéey nañu ci benn loi boo xam ne. mooy daan képp koo xam ne yaa ngi dóor sa jabar wala yaa ngi koy mettital taxaw nañu aussi ci loi bu ñuy wax euh, euh, loi 2020 buy criminaliser le viol de la pédophilie. wàllu alam gi waaye itam wàllu kaaraange ci bépp fànn gën ko ñoŋal mooy seeni mbébét ci at yi ñu dëgmal loole itam doonoon thème bi ñu jagleel cinquantenaire bile ay question la yoo xamante ne dafa soxal ak euh, ak yelleefu doomu aadama rawatina jigéen ñi waaye itam ay menaces ci sécurité publique lu ci mel ne ay cyber attaque euh, jëmmale ko ci jumtukaay yu xarale yi ak tamit di leen xoxotal. juróom fukki at yoo xam ne doxal nañ ko dafa tax itam ba ñu am yeneen défi yoo xam ne moo nekk seen kanam. bala nga ne naam ne fa fa ñu defal suñu association ba mu gën a dëgër baax na waaye dañuy yokk rek. bëgg nañ gën a taxaw ak gouvernement pour proposition yi nga xam ne yàgg nañ koo def pour texte yi mën a avancer jublu ci bëgg aussi euh, jigéen ñi gën a taxaw gën a bari ci mbirum euh, politique ak lu ci mënti am ñi nga xam ne ñoo samp bile kuréel te ñu sargal leen bu baax a baax ci ndaje mi mel na ni joxe nañu secret bi nga xam ne mooy tax ba lii ñu tàmbali mu dal di wéy ku ci mel ni Suzanne Vertu Diop ay atam toll ci téeméer nekk magistrat bu jigéen bu Sénégal njëkk am waaye itam bokk si ñi sos AJS ñaar fukki fan ak benn gi ñu génn ci lañ doon waxtaanee naka la ñuy jaar ba wàññi dund bi ci yenn produit maanaam wàññi njëg gi loolee nag euh, tàmbali nañ ko wéyal fii ci capital bi waaye ci biir réew mi it lu ci mel ni diwaan bu Jurbel ñoom it amal nañu seenub euh, ndaje euh, kilifa yi séq wàllum jënd ak jaay ak gouverneur bi ngir xool naka la ñuy jëmmalee yooyu prix ci diwaan bu Diourbel kiñ ñu ciy déglu moom moo di euh, ki nga xamante ni moom la ñu dénk wàllum euh, wàllu woowe euh, di saytu ñu duppee ko commissaire aux enquêtes économiques nekk itam chef de service régional du commerce bu Diourbel mu ngi wuyoo ci Abdoulaye Dieng. bi ñu dajee huile de palme bi diwlin bi ñu ngi ko am le litre au détail ñaar téeméer ak ñaari dërëm mooy donc demi gros bi mi ngi ko war a jaayee dix-neuf cent quarante francs le bidon de vingt litres bidon vingt litres bi grossiste bi ngi ko war a jaay dix-huit mille neuf cent huit cent quatre-vingt-dix francs bidon vingt litres bi ex usine usine bi importateur bi ñu ngi jaayee dix-huit mille six cent quarante francs CFA bidon vingt litres pour euh, riz brisé ordinaire ceeb bu donc ñu ngi quatre cent vingt francs maanaam juróom ak ñeent dërëm kilogramme donc demi-grossiste mi ngi jaayee dix neuf mille six bi saaku cinquante kilos bi grossiste bi di jaaye dix neuf mille trois cent franc bi wala usine bi mi ngi jaayee dix neuf mille cent franc saaku cinquante kilogramme sucre bi mooy suukar bu mokk bi kilogramme bi ñu ngi ko am à six cent dix franc CFA demi-grossiste bi di ko jaayee vingt neuf mille deux cent franc grossiste bi di jaayee vingt huit mille neuf cent franc mooy saaku cinquante kilos bi importateur mi ngi jaayee cinq cent soixante treize mille franc CFA production Richard Toll cinq donc euh, farine bi ñaari façon farine la bi ñu naan farine boulangère de blé de type cinquante cinq boobu saag bi bi ngi jar quinze mille cinq cent cinquante francs CFA farine boulangère améliorée bi saag bi saagu cinquante kilos bi ngi jar seize mille cinquante francs CFA ci wàllu mburu bi ñu ngi ci am ñeenti forme maanaam ñeenti euh, poids poids bi nga xam mburu bi nga xam ne soixante cinq grammes lay pesé boobu ñu ngi koy jaay soixante guro bi nga xam ne cent quinze grammes lay pesé ñu ngi koy jaayee cent franc guro bi nga xam ne mooy cent quatre vingt quinze grammes moom la ñuy wax format standard boobu mooy mburu bi nga xam ne bépp boulanger da ko war a defar defar bi da ko obligatoire boobu ñu ngi koy jaayee donc cent quatre vingt quinze grammes bi à cent soixante franc CFA beneen poids bi mooy deux cent vingt grammes bi ñu koy jaayee deux cent bu loolu wooyee donc bi mujj mooy ciment bi distributeur bi donc tonne bi ñu ngi koy distribuer à soixante quinze mille francs mooy prix plafond bi sac bi ñu ngi ko plafonné à trois mille sept cent cinquante waxtu wi ñuy wax wàllum wàññi njëkk ci yenn ci produit Euh, lu jëm ci meññee fi maanaam fu yi moom gis nañ ni am na yokkute jamono yi ñu génn loolee lañu nemmeeku fële ca rue Sandiniéry nga xam ni mun nañ jàpp ni foofu la euh, cap mooy capitalu lépp luy meññeef ndax fa lañ koy wàcce door ko wasaare ci biir réew mi jaaykat yi jàpp ni euh, clients yi sax fi ñu toll nii dañ leen a dumóoyu rax si dolli déguerpissement yi nga xamante ni yenn ci maire yi ñu ngi koy amal sonal na leen lool mangue ba ci banaana ñu jaaxale ko ci orange papaye ak li ni mel maanaam fruit yi yépp ñu ngi fii ci rue Sandiniéry waaye nag ñii di jaaykat yi gis guñu seen bopp bu baax jamono jile ñoom nag ñi xam ne ne que yi bëriwuñu te nag njëg yi dafa daal di yéeg. Ah, njaayam fruit bi actuellement ci jamono bi doxul semaine bi moom sonn nañ loolu njëg yi tamit dafa yokku actuellement nii depuis julli ji passé fruit bi dafa yokk actuellement nii fruit bi bariwul. yokku te doxut. non maa ngi koy mu gëj a yomb yàgg na te carton dafa cher yaa ngi carton plus de cinquante ji nag mango moo gën a fees ci marché bi fi nga xamante ne banaan dafa xaw a manqué. mango la mango moo du Dakar bii la manqué lii doo ñëw moo moo wàññeeku du kee noonu. juróom conteneur bu doon ñëw porte sànni pour Sina léegi ñetti conteneur ñaari conteneur mooy ñëw. comme ni ko yeneen commerçant si biir ndakaaru di ko dundee ñi ñu fekk foofu ci rue Sandiniéry itam ñoo ngay jànkonteel jafe-jafe déguerpissement bi nga xamante ne nemmeeku nañ ko si biir capitale bi ci fan yi ñu nekk mu nekk ab situation bi nga xamante ne daal dina gàllankoor. seenub liggéey. no actuellement ni Sandingheer moom jafe-jafe la ñuy dund jafe-jafe jafe bu métti da dangay xëy di daxante ak ramaat ba suba ba ngoon noonu ngay ñibbee ak loxo nen. bu deesoon si ñàkk marchement bi rek du ñu am benn problème dañuy xam ne dañ koy jàppee noonu rek comme pour bi moom léegi-léeg mu dox léegi-léeg marché boo gis noonu la léegi-léeg day dox léegi-léeg mu taxaw. mais actuellement nii mun nañ ne ramage bi mooy ñu sonal. ci seen wàll ñii di clients yi ñu ngay ñaxtu chertéewu njëgu fruits yi te nag ñuy woo ñii di njit yi ñu xoolaat rekk prix yi comme niñ ko defee ak yeneen denrées yi. ñu wax ci beneen xeetu meññeef mu di màdd. Euh, loole nag duppee nañu madd Casamance maanaam madd bi bawoo ca Casamance wutal nañ ko propriété intellectuel loole nag di li nga xamante ni euh, waa OAPI euh, def nañ ko di jéb di organisation africaine de la propriété intellectuelle ba jébbal nañ ko nguurug Sénégal mu mel ni madd bi jóge Casamance dinañ ko mën a exporter partout dans le monde te xam leen ni jógewul fenn fudul fii ci Casamance te loolu dina may filière boobu ñu gën koo mën a booster. association buy liggéey ci wàllum màdd ci Casamance jot na récépissé boobu ngir ñu mën a protéger seeni produits boobu les certificats am solo lool ci wàllum production produit locaux yi. solos ndaje bi nag moom mooy tey ñëwoon tey pour jébbal. association bi nga xamante ne moom moo doon liggéey tey ci wàllu màdd de Casamance bi seen certificat maanaam benn lijaasa la boo xamante ne tey benn banqaas bu nekk Afrique bi ñu tuddee OAPI organisation africaine de la propriété intellectuelle moom moo ko moom moo ko bind signé ko pour wax ni waa association bi tey d'accord naa ni liggéey bi ngeen liggéey ci MAD bi 2017 ba léegi mucc na ayib et képp koo xamante ne mu ngi koy jëfandikoo. ci produit yooyu noonu mu ngi jëfandikoo produit boo xamante ne produit de qualité la et que keneen itam amatul droit amatul sañ-sañu di jël produit bi di ko tuddee noonu fekk du fekk nekkul produit Madd de Casamance. kii di présidente association Madd de Casamance kontaan na lool ci certificat bi te di xam ne ni tamit dina gën a tax ñu protéger bu baax ni produit certificat yi daf ñu indi xaalis bu bëri parce que day gën a cher d'abord dañ koy jaayee xam nga autant dañ jaay Sénégal rek. amuñu moyen pour jaay international mais au moment où nous parlons aujourd'hui on est sûr que suñu madd bi dafa suivre benn processus bu nga xam ne da dugg na fu nekk dugg na laboratoire autorité sénégalaise séntu nañ ko OAP séntu na ko ba mu leer leen lii tout être humain ku ko consommer du am problème. indication géographique mat de Casamance dina gën a yokk opportunité yi ci wàllum production locale bi waaye tamit préserver lii di patrimoine naturel ak culturel bu région bu Casamance. ñu wax ci beneen wàll mu nekkoon kon reportage bu Sambou Dieng Sakho nekk sunu ndaw teewal ñu ci diwaanu Sigicoor ñu wax ci weneen wàll mu di wàllum nawet gi euh, ñu koy séentu fële ci diwaanu Njàmbur ñu ngi waajal bu baax ñoom it nawal nawet gi ba tax na li ñuy wax curage ñu ngi koy amal ci caniveau yi duppee euh, programme bi nag fëggu jëm nawet maanaam waajal nawet bi bu baax a baax a baax gox yu bëri nag nee nañ foofu canalisation yi jot nañ fa amal curage kër Serigne Bara Grand Louga ba ci euh, yeneen i gox kiñ ci àndal moom moo di chef de section technique bu ONAS euh, nekk ca diwaanu Louga. tey jii nii bu ñëwee tey ci lu mel ni ville de Louga. liñ fi génnee ci mbarit mi bari na solide yi bari na. y a les bidons y a les imperméables des tissus y di sable y di du tout ce que bari na daal ñu ngi ciy def fu ñu jaar kii nañ ko ba mu set wécc au niveau de Louga muy gris avaloir yi nga xam ne nii tey eau pluviale bi mu ñëwee ci lay dugg pour mën a dem daan station ñu pompé ko. am nañ fi ay point bas point bas yoo xam ne tey jii au niveau de euh, euh, Kër Sëñ Baara. ñoo ngi ci di ko curé ah yaa not que xale yaa ngi ci ñu nekk ci guddeeg bëccëg di ko curé soo demee cox na tey jii ñu ngi ci ay gris avaloir ñoo fa nekk daf fees ak suuf ñu ngi koy curé dal na te on va le continuer on va on est en train di ko def avant pendant et après man dama wax sama camarade yi ñi nga xam ne nii euh, ay syndicaliste ay délégué de personnel lañu bon ñu xool euh, nan lañu ñu xoolaat seen waxin mën nañ nawet nañ teg wax ji teg réunion yi teg AG teg point de presse yi jublu ci liggéey bi parce que loolu la Sénégalais yi di xaare li ñu wax li ñu wax wérul li ñu wax parce que man maa ngi suivre l' évolution du personnel gisaguma le docteur Cheikh Dieng jël ci ONAS benn prestataire. kooku doon àddu mooy Moussa Gueye moom moo di nag chef section bu Louga doon indi ay leeral ñu wax ci ñeneen di lu toll nag ci ay téeméeri ndaw bokk ca ministère bu ñu jagleel wàllum napp gi ak infrastructure maritime maritime ñooñee nag am nañu euh, ay njàqare ndax ñenn ci ñoom ñu ngi ci euh, chomage maanaam banque nañ seen i yoxoo ab diir a ngi ni liggéeyuñu ñeneen ñi di am njàqare seen contrat daal di jeex ci euh, weerub juin bi te loolee nag bu ñu sañoon dinañ ci bàyyi xel ndax seenub liggéey rek la ñu am ngir suturlu suñu contrat yi daanaka suba lay jeex la 30 juin bëgg nañu vraiment autorités yi bàyyi bàyyi bàyyi ñu xel bu baax vraiment comme ça ñu mun ñu defal ay CDI parce que si suñu département am na ñoo xamante ni am nañu ay CDI mais surtout tamit ñu recruter ñu au niveau de la fonction publique parce que boo defee euh, boo demee laajte suñu chef de service yi ñoom ñëpp vraiment gis nañu wax nañu liggéey bu am solo boo xamante ni euh, contracté stagiaires yi ñu ngi koy ñu ngi koy mëne nag mu ngi toll si mu ngi nekk ci ci ci paiement pécule yi maanaam suñu indemnité de stage léeg day yéex jamono ji passé toog nañu euh, daanaka juróomi weer euh, amuñu amuñu woon euh, suñu suñu suñu pécule suñu suñu indemnité mais teewul sama sama gaa yi waaw naataango contact stagiaires yi ñoom comme li may wax rek ay patriotes lañu mu mënoon nañu munoon nañ toog seen kër neen duñu liggéey wala ñu def ay grève wala ñu nekk ci médias yi di di di scander turu yi mais defuñu ko muy wuyoo ci turu Ousmane Thiongan président des contractuels du ministère des pêches des infrastructures maritimes et portuaires kon Bakary Cissé ak Amadou Diallo ñoo doon taataan ay kàddoom mbokk yi lii lañ leen fi indiloon ci ay xibaar xanaa di leen fàttali li nga xamante ni moom mooy li gën a fës ci bopp bi kon mu nekkoon xew-xew bu amoon fële ca pencum ndaw réew ma tey la woon ñu doon fa xaar jawrin bi ñu dénk wàllum gafaka biir réew mi euh, waaye nag loole mujjuta antu ndax euh, député yu féete euh, ci majorité ba ca assemblée di benn bokk yaakaar dañ koo dumoyu ndax kàddu yi nga xamante ni nee nañ limaanu jawrin ni yëkkati nañ ko ci wàllum déclaration déclaration de politique générale kon mu nekk débat d'orientation budgétaire bi nga xamante ni mujjuta am ci euh, ndaje moomu nag lenn rek lañ ci nemmeeku ni moo am na ñaari député yu yees yu ñu dalal kenn ki moo di euh, Amadou Ba Euh, bu Pastef gannaaw ba Birame Souleye Diop tekkee ndombal tànkam ndax euh, euh, wuy ji postam ci biir gouvernement bi kon Amadou Ba moom moo ko remplacé foofee ca péncum ndaw réew ma mu di moom it ak keneen kuy wuyoo ci turu Samba Diouf kon ñoom ñaar ñoo la ñoom la ñu dalal tey ca pencum ndaw réew ma waxtaane nañu aussi li nga xamante ni moom moo di la xewoon ca lycée d'excellence Mariama Ba doon sargal ay élève di euh, xale yu jigéen yi dàq jàng ci atum ren moyenne yegg na sax ba 9 virgule Euh, mu nekk li nga xamante ni chaque année dañuy sargal kon ñoom waa lycée Mariama Ba seeni i meilleurs élèves euh, maanaam xale yi gën a sawar wala gën a euh, ràññeeku ci njàng mi madd de Casamance nekk na produit certifié loole tamit mu nekk li nga xamante ni dina may ñiy yëngu ci filière bi ñu mën a exporter madd yooyu le ba sax diwaanu bitim réew OAP yi mooy yëngu lépp lu jëm ci wàllum propriété intellectuelle fii ci Afrique kon moo leen certifié ni madd bu Casamance daal mën nañ ko jaay ba sax diwaanu bitim réew mbokk yi loolu mooy ñetti ponk yi gënoon a fës ci suñu jotaayu xibaar Suzanne Dem dina fi teew léegi ci euh, bu juróom-ñetti waxtu jotee dégtal leen euh, xibaar yi ci kàllaamay nasaraan di gërëm waa rédaction di gërëm équipe technique bi euh, régie ak montage ñëpp di leen gërëm waaye yéen di leen gërëm mbokki téléspectateurs yi di leen jox dig daje beneen i jamono jërë ngeen jëf